waaw ñàkk kaaraange bi ci dëkk bi corruption moo ko waral parce que boo gisee drogue bi muy circuler corruption moo ko waral gars yi dañu war a xool corruption bi corruption bi tant que mu ngi am ci dëkk bi dëkk bi du am sécurité parce que drogue bi day circuler nice boo amee 500 sax nga am drogue loolu dafa yomb quoi loolu nag état bi moo ci war a jël décision am mu xool lu tax drogue bi di circuler lu tax jeunes yi ñuy am lu ñuy tuxe loolu moo dul yoon quoi waaw xam nga gars yi dañuy teggi waxu yàlla. yàlla moo wax yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir moom moo am droit rey moom moo am droit dundal nit nit amul droit rey nit nit bu reyee nit dañ ko war a rey dañ ko war a pendre en public ñu rey ko loolu mooy yoon mais nekk fii naan nii topp ay tubaab yi seen droit yooyu nga xam ni ñoom sax appelé wuñ ko États-Unis boo fa reyee nit dañ lay rey Sénégal fii nii États-Unis moo ëpp démocratie Sénégal téeméer yoon Tout États-Unis boo Sénégal fini 99% des musulmans nga nit ñu deux jours nga gisaat que muy dox loolu mooy indi haine gars dañuy deux jours trois jours nga tasewaat moom ci mbedd mi nan def peine de mort publiquement. oui c'est possible parce que aujourd'hui les police ak gendarmerie. Avant, ils se regardaient en chien de fer parce que derrière, les gendarmes, il faut compenser les des militaires. policiers, il y souvent des civils. Donc eux, ils ne veulent pas être dirigés par les, policiers. Bon, le ministre de l'Intérieur, j'imagine, bon, c'est un, civil de formation. Peut-être qu'il n'a pas fait l'armée. Donc derrière, nous avons tant que gendarmerie, moi, il un problème de, leadership et tout. Il faudrait nous rôle. comment mutualiser. Aussi, nous, pensons, penser, esprit républicain, c'est pour le Sénégal. Donc que ce soit la police, l'armée, gendarmerie, ils ont un seul but, c'est la comment dirais-je, préserver euh, l'ordre public. Donc derrière, il faudrait une rôle, comment mutualiser, non seulement police, gendarmerie, mais aussi les agences de sécurité aussi, parce que eux, ils sont terrain. Donc toujours, comme le maire Paul mais il faut aller à la source. Nous tel que Donc cette proposition du ministère, je pense que c'est venu à, à temps. Maintenant, les modalités, il faudra gars comment comment mettre ça en place. oui bien sûr parce que Dakar c'est une plaque tournante Dakar c'est une plaque tournante Dakar les pollues d'Ougou, ci Afrique déjà Dakar muy aéroport muy port donc Dakar dafa nekk une plaque tournante de tout le temps peut-être le les réseaux sociaux il y affaire yi y a mais yàgg na affaire doog yàgg nañ fi dégg yàgg nañ dégg saisi mais les bon ak les réseaux sociaux WhatsApp. Facebook day il y a un problème automatiquement ñëpp dañ koy yëg peut-être avant daan nañ def ay ay saisies ay prises yo xamné gaay daan ñu maintenant il faudrait que ñu renforcer sécurité parce que gars mëno un intérêt pour ñu trafic bi doom il faudrait que ñu renforcer sécurité bi mais derrière aussi ñu protéger suñu population parce que tay ji des fois nga doon des ay scandale amna a ay xalé yu doon jël ay alcool sachet alcool ñi jaay ci école et tout donc tous ces ces ces petits noonu lay commencé nànk-nànk après di foo di tuux di di tuxantu ba après moom mooy indi ay ay euh, yenn yenn boo nekkatu boo lucidul donc moom mooy indi euh, moom mooy indi yenn euh, yenn yenn problème yi donc drogue bi c'est vrai que c'est lié à la ah xam naa ne lu doy waar daal te yaakaar naa explication yi war naa bari ndaxte. yaakaar naa ne bon euh, xale yi amuñu liggéey te pauvreté bi dafa gën di avancé ñu gën a am ñu gën a am ñu gën a ñàkk ñu gën a ñàkk kon nag gouvernement bi war na góor góorlu bu baax seet bon yan vraiment les véritables causes euh, accident bi euh, du moins agression yi ak tueur yi nga xam ne bon chaque jour muy gën di law dal bon violence bi ci bi bari na proportion bo je pense qu'il est temps que l'État agisse et que les citoyens aussi ñu jël sen parce qu'aujourd'hui, les forces publiques ñi ngi def mais je pense qu'il y a une sensibilisation qui doit être de proximité par exemple essayer de voir au niveau des quartiers comme Mangis, côté Touba ñi ngi def comité de vigilance ñu encadrer len former len comme ça au moins nous euh, devons gérer au niveau local euh, la sécurité quoi parce que les forces publiques aussi d'ailleurs quoi on sait que la police est en sous-effectif armée aussi ils ont d'autres euh, priorités donc il faudrait que la population ait une rôle avec le système des ASP et tout comment organiser le organiser secteur Bob, quoi comme ça derrière ñu mun la violence bi mun gérer dès le début quoi pour ramener les tenants et les aboutissants boole sen doole lu bax la waye tamit population yi tamit am nañ ci part de responsabilité quoi ndax da ngay gis ku ñuy agresser kenn duko ko kenn du ko wàllu ku nek da ngay daw sa responsabilité alors que nit ñi tamit dañu wara taxaw ku ñu gis ko xam ñu ngi koy bund xatal wala ñu ngi koy def lo xam nekul lu lu ki ñu dimbali ko su ko defé xeyna lool tamit bu ci population yi jappé nguur gi jàpp ci à travers les forces de sécurité yàlla mën naa def mu wàññeeku daal.